si guddi ñun sapeur pompier yu ndakaaru ñu ngi ñu woo téléphone bi deux heures du matin toftale cinquante trois minutes euh, nañu dafa am benn lakk-lakk bu am fii si ancienne piste ba ñu ñëwee dañu gis ne lakk bi mu ngi concerné ay kër yoo xamante ne ak ay bant lañ ko defaree ba pare ñu nekk si million boo xamante ne ay garage mécanicien ñoo leen wër ñu nat euh, sapeur pompier ba ñu ñëwee indi nañ fi ay moyens yu toll si juróom benn woto yoo xamante ne day fay lakk ak euh, ambulance si euh, loolu nat lañu daal di jàmbarloo ak lakk-lakk bi ba jot ko fay waaye bañ ko fayee nat lañu gis ne Euh, am na benn nit boo xamante ne mi ngi woon ci biir lakk bi boo xamante ne dafa ñàkk bakkenam euh, lakk bi ñu ngi ko fay euh, ci ñaari waxtu opération lañ ko fay completement voilà waaye nag ba ñuy ñëw ci daay gi jànkonte woon nañ ay jafe-jafe yu métti ndax déjà yoon wi pour egsi fi dafa yombul gis ngeen ne suñu oto yi dañoo xaw a mag te fii ay mbedd yu sew ñoo fi nekk ay yoon yu sew ñoo fi nekk loolu pro benn problème la ñaareel bi place bi nii sori na lépp li nga xamante ne mooy bouche d'incendie wala poteau d'incendie ce qui fait que euh, fale ñu indi fi ay oto yu bëri pour mën a am ndox mu doy pour fay fii tamit place la boo xamante ne Euh, bokk na si koñ yoo xamante ne dañoo xëy rek judd dañoo xëy rek judd daanaka nit ñi ñoo xëy rek di tegle seeni bant ak seeni kii ba mu nekk dëkkuwaay donc loolu tax na ne euh, boo leen seetloo euh, respecté wul benn norme boo xamante ne norme prévention la respecté wul tamit benn norme boo xamante ne si wàllu nu ñuy tabaxee la ni dëkkuwaay en tout cas war a dëppoo bërëb bi menu ko woon looloo waral daay bi gaaw euh, waral tamit euh, kii fi ñàkk bakkenam ñàkk ko fi lakk-lakk bi nag li ko waral euh, ñun xamuñu ko waaye gendarmerie ubbi na si ab enquête te yaakaar nañ ne ñoom dinañ si mën a wax dara boo leen xoolee tamit yàqu-yàqu am na fi bëri na ndax nyu ni ñu taxaw sama ginnaw demb ay barak ñing fi woon tay bo leen xolé danaka dara nekkut fi pour wax leen ne ne lak bi metti woon na waye loolu yeb dal enquête gendarmerie dina la mëna wax exactement euh, en tout cas xayma bi fu mu toll. Euh, ma ngi sant ñep di gërëm ñep di wax ni tay dañu ñëwoon euh ci ancienne piste bi ngir. Euh, indi suñu njaal waaye tamit massawu ñi nga xamante ni dañu lakkale démb ci guddi di wax ni euh, lu metti la te euh, ñu ngi leen di euh, wax ni état bi du leen mës a bàyyi te saa su nekk dina ñëw taxaw ci seen wet di wax tamit ni malheureusement ci lakku démb bi am na ku fi bàyyi ko ñuy massawu dëkkaale yi nga xamante ni moom ñoom lañ fekk fii di leen ko jaale di ñaan yàlla mu xare ko àjjana di ci profité waale aussi di jaale waale ñëpp ñi nga xamante ni ñàkk nañ seen bakken ci fan yi mu nekk loo xamante ni lu tiis la lu metti la doon ay cas de violence yu ñu gis ci bérébu liggéeyukaay yi waaye nek ay cas de violence yo xamanteni tamit ay nit yu xamanté ci seen biir euh, daf ci euh, jugé soqee ko ci bu lolou weesoo muy cas de violence su nit ñi nga xamante dañu xamanté ci cadre professionnel ak cadre privé ni bokk di liggéey wala bokk dëkk wala bokk di defandoo ben activité sportive gis nañ tamit ni am na euh, samba boy, yuy leg leg di keuf wala di fëkk yefu jambour, ñoo xamanteni ni dañuy liggéey nit ñi nga xamante ni dañuy xëy seen kër dem di liggéey di ñaqee di dundee seen ñaq wala ñi nga xamante ni dañu nekk ci seen ay biir kër li leen état yoreel mooy protection li leen état yoreel mooy taxawu leen li leen état yoreel mooy nekk ci seen wet ndaxte soo ñëwee ci askan bu mu mënti doon di nga gis ñoo xamante ni dañu tegu ci yoon di dundee seen ñaq di liggéey di góor góorlu am ñoo xamante ni dañuy fekk ñiy dundee seen ñaq ñu bëgg a ñëw di foqati wala di indi ay xeetu violence yoo xamante ni dañuy jël loolu nga xamante ni moom la ñu am ci seen liggéey loolu nag état bi du ko seetaan te ci loolu dama bëgg a wax ni euh, boo leen seetloo fan yi ñu génn muy police muy gendarmerie am nay opération yu bëri yoo xamante ni ñu ngi koy def muy opération de sécurisation ñi ngi nekk sur le terrain muy Dakar muy yeneen gox yi nekk ci réew mi waaye du loo xamante ni dafay dakk dafay wëy fileeg fan yi yëpp ak weer yi yëpp di sur le terrain police ak gendarmerie di opération yi nga war nañ ko def ngir mais bu loolu weesoo wax euh, ni gendarmerie ak police numéro téléphone vous xamante ni boo gisee wala gis numéro yooyu numéro 24 heures sur 24 7 jours sur 7 donc juróom-ñaari fanu semaine ak 24 heures au jour bi sa yo len wootee dina am ko xamanteni dina décrocher boudé police la mën ngeen wo 17 boudé gendarmerie mu ngeen wo 800 00 20 20 waaye bi ñu ni numéro gendarmerie bi xañ na dafa gudd dañ wax sax ni nañ wut benen numéro bo xamanteni moy gëna nexa japp ba nga xamanteni ku ci woote di nga ko mëna japp ci xel waye ku ci woote dinañ la wuyu muy 1 2 3 numéro 123 numéro bobu nak képp ku ci woote do fay dara te fan yi weesu gën nañ ci liggéeyaat ba nga xamante même ñi fay nekk di répondre téléphone di décrocher waxtaanaat nañu ak ñoom tàggataat nañ leen ba léegi rek laata may ñëw ci suba ak ci euh, man ci sama bopp jël naa sama téléphone vérifié vérifié naa 17 bi vérifié naa 800 00 20 20 bi vérifié naa également le numéro 123 sapeur pompier Boudé dee la numéro 18 la. kon képp koo xamante ni gis nga jéeya ak foo ko mënti gisee wala nga gis loo xamante ni ñooña dañu soxla ku leen taxawu ci saa si na nga woo numéro yi te doo fay dara muy juróom-ñaari fan ak 24 heures sur 24 di massawu nag ñi nga xamante ni yàqule nañ ak di jaale ni ma ko waxate woon léegi ñi nga xamante ni dañ fi bàyyee di leen leeral ni liggéeyu état ak taxawaayam mooy taxaw ci wetu population bi ba nga xamante ni li ñu soxla ci ak jàppale li ñu soxla ak ci ak kaaraange ak li ñu soxla ci rassurer leen malgré gis nañ ni léeg-léeg nga gis ñenn ñi di def amal amalgame léeg-léeg ñu gis loo xamante ni dafa naan tëll nit ñi di ci wax loo xamante ni wóoru leen te loolu dama koy fàttali sama bopp di ko fàttali ñeneen ñi nit lu mu xamul wala lu mu yëgagul lan moo nekk ci biir bu mu tiital ñeneen ñi wala mu ciy wax loo xamante ni xamu ko te kilifa niñ koy waxee du gaaw a addu waaye tamit du gàggantikoo ci mbedd da ngay bàyyi ba ñuy xam xamal la ñi la war a indil information indil la te bu dara amee dinañ ko saytu xool ko ba taxaw ci taxaw bi ñu ci war a am yëpp ba nga xamante ni saafara bi nga xamante ni population yi ñu ngi koy séentu ñu indil leen ko ba su ko defee ñu am dal bi nga xamante ni moom la ñu xam toujours ci suñu réew te loolu mooy nar a continuer incha ma leen di sant di leen gërëm wasalaam